boo agsee fi si marché Mame Diarra si Touba li nga njëkk seetlu mooy ay place yu tëj seeni boroom toog jaaxle liñ ci am mooy xëy toog di xool seeni i buntu li ko waral nag bokk na ci bun sukkandikoo ci ñii di yëngu ci wàllub cordonnerie yi ude yi de am nañu jaaxle lu tollook ñaari weer ndax mbas mi am jeexintal seen xëy. ci dëkk bi nga xam ne mooy Touba cordonniers yi fi nekk di maçonnerie yi fi nekk sonn nañ ba fi sonn yem liggéeyatuñu seen métier génnatut seen i dàll dematut gisatuñu dara te ay boroomi kër lañ am na ñoo xam ne ñeent soxna lañ yor am na ñoo xam ne ñett soxna lañ yor am na si ñoo xam ne ñaari soxna lañ yor te saa ñu masaa xëy ah li ñuy joxe seen i kër amatuñ ko mënatuñ ko. tey jii am na si ñoo xam ne bi ñu recensé rek maanaam ñi nga xam ne tey jii yooyoon nañ ko deux cent onze personnes lañ. ñoom ñi doon ay borom kër njaboot gi yaakaar si ñoom ñu nag gis ñuy séddale ay dundu si bépp fànn te nag xamuñu fu ñuy jaar ñu yëkkati seen kàddu laaj wàllu directement jiitu réew mi président Macky Sall. ba tax ñuy lancer appel le président mu dimbali ñu sunu dimbal na mu ngi aju ci chambre de métier président Thiam jiite ko mu nekk ci région bi nekk Diourbel. am na si ñoo xamante ne nii na këyit lañ xam muy képp koo xam ne am nga carte professionnelle état reconnaître na la mais dañoo bëgg it état boole si ñoo xamante ne nii tey jii si secteur bi ñu nekk am na ñoo xam ne amuñu carte professionnelle te sonn nañ te si njaboot gi lañ bokk te bërëm li bërëmi kër lañ. te fi mu toll nii liggéey bi foo ko natt weesu na ko. cordonnier yu Touba. situation Covid 19 bi jàpp na leen loolu mënatuñoo dem tukki si sous région bi di yóbbu seen ay commandes bu dee fii si Touba la moom wax noppi dafa gën a metti sax si ñoom li nu bëgg daal mooy ndimbal ak fu mu mënti jógee ñoom dàquñu ko buñ sukkandikoo seen jiit lii. doon dundee yaakaar it ci sous région bi nga xam ne lu mel ni Banjul gine Mali Burkina. fépp la sunuy dàll daa jóge ci marché Maam Jaara bii ak ci dëkk bi daa fa dem cordonnier na buñ ko waxee mooy marché Maam Jaara mooy chaise bi mais marché Maam Binta marché Daaru Marnaan ak yeneen lieu yoo xamante ne nii ci ay rue yi fasanti ko ci biir dëkk bi sunuy mbokki uude ña nga fa coronavirus secteur yëpp la paralysé ci biir Touba ak ci biir Sénégal àdduna wërngal këpp waaye nag bu dee am na ñoo xamante ni ñoo ngi ci sax taaba taaba di ci am as tuut ñii di udee ñoom gis ñu dara dafa gën a métti ci ñoom yoo xam nag wàllu di sàkku ci bonne volonté yi ñu mën leen jàppale.